bari incha allah doom ñëw nii mhm. pare naa sax ci ci seet mhm. sarax bi nga wax nii moom lay enchaîner nii ak mhm, yow parce que sarax bëgg naa nga waxtaan ci ak man bu baax a baax dëgg la dëgg la a baax ndax version yi ma ci dégg ci sarax dafa bari <laughs> dëgg la tey man mii di jojo mën nañ mm. maa saraxloo ñu ne ma rayal nag nga saab ay kii fekk dégg naa du sama sarax dafa dëgg la dëgg la dëgg la wala ñu ne ma saraxal soow mbaa meew fekk na man loolu du sama sarax dëgg la dëgg la la yeneen ak yeneen ak yeneen sarax yu bëri yu nga xam ne ñu ngi koy wax doomu aadama yi ñu koy def mm-hmm. te warul ci ñoom mm-hmm. loolu mm-hmm. dëgg la wala lu dëgg nit ku ne dafa am li mu war a saraxe wala nit ku ne par rapport ak la nga gént loolu nga war a saraxe wala la sarax lan mooy sarax ak nan la ñuy saraxe ak kañ la ñu sarax euh, li nga wax noonu dinaa ci wax gént moom uh-huh. ñetti xaaj la boroom xam-xam yi dañuy wax ne ruya as-saadiq loolu la yàlla mayoon yonent yi laxad sadaqa allahu rasulahu ruya bilxaqi la tadxulunna almasjid alxaram loolu man mën naa koo am walu yàlla yu bëree bëri fii ak nitu yàlla yi mën nañ ko am loo gént boo xëy teg ci sa bët mm. am lu ñu tuddee adrasul alam mooy ki nga xam ne day gént ay ginne ak i rab ak yooyu am lu ñu tuddee xadisu nafs man ak Zozo tey démb ñu waxtaan rek ma tëdd rek xermente loolu mu mel ni kii nii mm-hmm. gént maxaama la du ku ne ko yàlla may ñu bëree bëri bu géntee dañ koy fàtte dëgg la mais gu leer mooy génnee saraxu doomu aadama bi waaye sarax nag ak niñ koy defee wa amma man aata wa taqa wa sadaqa bil xusna doomu adama bi nga xam ne day jël alalam mm. di ko génnee ci ragal yàlla di ko joxe tamit ak ci kirmaan man ci sekre mm-hmm. ak yéene mm-hmm. loolu mooy asaxa loolu du bokkut ak sarax azakat ak sadaxa nekkuñ benn mhm. wa amma man aata wa taqa wa sadaxa laa wax bil xusna mhm. da ngay gis kii def loolu noonu ci alalam loolu da ngay gis yàlla da koy yombal ay yomb yombal mbiram yëpp dafay yomb te sadax dafay tegg ndogal yàlla man naa dogal ci zozo mi na zozo mi de feeg suba yàlla tere otom bii mu jaaree fii danañ ko def nangam wala leen dana ko dal mhm, fekk yow nga am ak man relation bu doy waar nga ne ma seen naa li xooloon ma léegi ma ko xoolee dinaa la wax sarax bi boo ko génnee la nga fa waroon sarax dafay teggi ndogal day yombal ay mbir mm-hmm. sarax dafay yokk nit ay fanam léppi mm-hmm. doomu aadama ci sarax waaye sarax nag gis naa ñu baree bari dañoo jàpp ne ay ray nangam mm-hmm. li ci ëpp solo nag booy saraxe da ngay saraxe loo gën a bëgg du ay damay jël benn kilo ceeb def ko ay nàkk joxe wala ma jël paquetu mbiskit joxe ko nii nangam booy joxe sarax da ngay joxe sarax lu mat a joxe sarax te nit ñi nañ xam ne doomu aadama bu ne am nga sa saraxu bés waaw am sa saraxu semaine am sa saraxu weer foofu laa bëgg nga dugg waaw c'est important. am sa saraxu weer. gars yi dañu xëy suba rek di saraxe. bës bi bës bu nekk bës bi njëkk ci weer wi sax bu dee am nga sëriñ boo xam ne moo téye sa mbiri dan la oonal defal lii jëmul ci moom sarax bu sëriñ bi gën a bon gën a ñàkk la gën a wayadi gën a bëgg a toroxal njabootam mooy kii jël sarax di ko yóbbu ci njabootam hmm. sarax luy génn la mooy fànk mbir mi la doomu aadama bi kii ba mu set wecc nit ki am jàmm hmm. zozo ñaan ku ci bëgg am xaalis booy def résultat rek am ci alal dëgg la ñun nag ci loolu lañ tegu te duñ ci jël ba pencam yàlla bismillah euh, mais bu des na tuuti ci sarax mhm. xam nga dama mës a dox almadi mhm. sama booru kër noonu mhm. am na ñu fay yalwaan ba trois heures du matin ay mag nag ay maire yoo xam ne soixante dix ans quatre vingt ans am nañ ko dëgg la ba cinq heures du matin boo fa demee ñu nga fa taxaw dëgg la ma romb zozo zozo zozo ma dem bay génn am ku nekk ci biir otom ci station bi la woo. Mhm, mhm. kooku tamit dafa doon mu ne ma kenn du saraxe heure bii <laughs> mu ne ma sarax dafa am heure. Mhm. heure bii yaa ngi nekk sarax mais c'est dangereux. ma jëlaat sama xaalis dugalaat sama poche. loolu nag dinaa la ci wax. waaw ci lu guddul. waaw. Euh, sarax am na am na heure. am na waxtu am na minute am na lu ne. waaw mais sarax bi gën sax mooy nit ki fam ko soxlaa nga joxe ko ko. gis nga kooku. mag la. waaw am na soxla bàyyi na njaboot kër ga ma ngi nekk ci ay difficulté waaw boobu da nga waroon jël alal ji nga ko bëggoon jox ak sa yéene ndax innama amalu bin yaat ah, innama amalu bin yaat wa innama li doomu adama lépp lu muy def rek na ànd ak yéene kii dafa soxla waaw xanaa xamoo doomu aadama jox nga nit sax waaw nag marabu yalwaan ba trois heures du matin moom loolu déedéet yalwaan ku am ku am ku am du yalwaan waaw ku lépp a mat te yalwaan amul heure kersa woo nga yalwaan yalwaan amul heure nit ki fekk ma ngi am soxla day génn dem uti ko waaw wallaay dëgg la force da koy dem uti mais nit danay jël dara jox ko nit may ko ko yéene woon ci sarax te fekk tiyaaba sarax mhm. wala la yoolu sarax nga ciy am mhm. jox nit heure ba mu soxlaa ak waxtu ba mu loolu kenn xamut fay bu ci nekk nañ gën a respecté sarax mhm. gën koo fonk am heure rek nangam. loolu mais mais sarax tur ay deret ak yow loolu mën nga koo digal nit. man man mën ngaa seetal nit xam ah, ne sarax. waaw rey xar ndax ñaari façon ñaari façon xam-xam moo am dafa am zulmaani yu am nuuraani mais man bu dee cent pour cent les quatre-vingts pur cent xam-xam bu weex tàll laay liggéey mais nag nit ki nag baatin boo koy jàng da ngay jàng ñaar yëpp. Hmm. parce que en hmm. am na ñoo xam ne bu ñu doon laal alxuraan ba adduna tukki. Hmm. seen mbir mën na di kii mais ala kulli xaal ni lay defaat. Mm-hmm. mais nag boo leen xoolalee xam ne ñii sen mbir lii la méngool mm-hmm. da ngay futteeku dox ceeg ñoom ci anam boobu jërëjëf